salaamaaleykum mbokk yi maa leen di bu baax a baax man doomu senegal la comme yeneen doomu senegal yi nekk Chine <coughs> waaye man dama nekk fi nga xam ne mooy ville bi ñuy wax fa la virus bi nekk waaw léegi man damay dégg yenn propos yi wax ni ka ñun ñu ngi ci jàmm ñu ngi dund xaw ma lan. que nekkuñ ci benn danger affaire yooyu daal mais dama bëggoon indi ay leeral rek instant bi nii maa ngi dox 18 heures a jot dafa lëndëm nii rek mais gis ngeen mbedd bi amul kenn ku ñeme dox amul kenn ku ñeme dox lii yëpp lu ko waral mooy nit ñëpp dañoo ragal contamination léegi lii nii ku ci nekk est-ce que nekk nga ci jàmm nekk nga ci jàmm loolu laa bëgg ñuy wax ma gis nga kii ni maske kanamam gi ci kaw ba ci suuf ah gisa kii ni masqué kanamam ci kaw ba ci suuf nit kenn ñemewul dox man instant yi génn bi ma génn nii rek bii bi mooy première fois mooy génn depuis trois jours te instant yi ci sama buntu université laa nekk yaa may dégg donc man pour man dañu war a bàyyi yenn propos dalal xel yi ñu nekkee di wax naan ni ñi étudiants yi ñu ngi ci jàmm ak yi demee noonu ñun nekkuñ ci jàmm bu ñu nekkoon ci jàmm dañ koy wax man au début sama papa daf ma laaj ma ne ko jarul ngay am leen looy tiit di ko ragal mais instant yi wax dëgg fa yàlla parce que mënu ma comprendre lépp gars yi dañ koy jël di ko maslaawee wala di ko xoolee seen intérêt bopp alors que ñun essence bi ravitaillement yi ñuy jënd sax risque la parce que bu ñu demee ci supermarché yi ñu ngi ñu ngi nekk en contact ak nit ñi te supermarché yi essence yi prix yëpp dañoo grimpé lépp a cher lépp a cher donc ñun kan moo ne ñu ngi ci jàmm kan kan moo ne ñu ngi ci jàmm nekkuñ ci benn jàmm maa ngi nii di ko wax waaw te dama bëgg nag ñëpp jot salaamaaleykum mbokk yi man maa doon def vidéo bi léegi di wane fii état bi ñu nekkee gis ngeen nit bu dox sax gisoo leen ko te instant yi cas bi day gën a yokk ñun ñu ngi nii ñun quelques sénégalais ñoo fi nekk. instant yi man possibilité bi ma am nii sax génn sama biir dormitory yi sax am na ñoo xam ne amaduñ ko dañ leen tëj ci seen biir université yi. génn sax munuñu ko lekk yi leen di jox sax dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko planifier par horaire léegi man damay gis yenn propos nit ñi naan ñi ngi si jàmm gars yi nit ñi waaj a évacuer man gisaguma loolu yëpp te man maa ngi nii fii laay dund fii laay dund ñu ngi nekk di dund lu métti lu méttee méttee métti waaw loolu nag laa buggoon mu leer instant yi ñun supermarché bi ñuy dem sax naan ñu ngi def di wut ay ravitaillement risque bu metti la risque bu metti la instant yi dëkk bi dara dawul amul oto amul dara parce que gars yi xam nañu risque bi mu nekkee léegi nag bu fekkee nit ñi dañuy toog Sénégal naan ay nit ñi ñi ngi ci jàmm Sénégal xaw ma la nag la c'est parce que dañoo nekkul ci milieu bi man mi nekk ci milieu bi nag man maa leen ko mun a wax xam sama yëre gi nii fii Wuhan la Wuhan Wuhan laa nekk. waaw dama bëgg mu leer si bopp ñëpp te man maa nekk fi nga xam ne fii la virus bi ëppee donc ñi fi nekk naan nit ñi ñaa ngi ci jàmm c'est parce que dañoo nekkul fi affaire bi nekk waaw loolu laa bëggoon nit ñi xam te ñu bàyyi nekk fii naan ay di def ay rumeur yoo xam ne wóoru leen boo leen bëggee lu leen leer da ngeen laaj ñu koy dund waaw te essence yi denrée alimentaire yëpp yokku na yëpp yokku na te essence yi supermarché yi seen approvisionnement léegi mu jeex ñun déjà benn danger rek dafa am mooy que ñi ngi génn di nekk en contact ak nit ñi bu ñu demee supermarché te mënuñoo toog suñu biir kër yi te virus bi mën na la contaminer ci n'importe quelle façon imaginel ñu ko yàlla nit am virus tufli bu tuflee nga dugg ko sa dàll sax nga dugg ak moom sa biir nekk yaa ngi en danger xam nga donc léegi nan lañ nekkee si jàmm nan kan moo ne ñu ngi si jàmm kan kan ma dégg nit ñi di wax ay waxu ay renforcement financier ñun soxlawuñu xaalis ñun ku ñu jéem a dimbali ñu génne ñu fii yóbbu xaw moo xam fu mu ñu yóbbu même bu ñuy mettre à quarante ñu mettre ñu ko mais nañu ñu génnee yóbbuñ si parti bu safe boo xam ne ñu dinañ mën a nekk ci jàmm waaw loolu laa laa bëggoon mu leer wasalaam.